si. xool ma la ci lenn bëri laa la wax man foo jaar nga tax suuf si yow foo jaar nga tax suuf si da nga koy sotteeku bëri ñëwaat tëddaat mu lay neex mu lay naqari fooy bañ a jaar fu ne jóob de jeex jàmm dina la fa jaarale xalal ma loolu borom soow mi ngay waxal xalaat naa doole ah jeex amoo doole foo yow looy fooy bañ fi naa la fa jaar la boo jóg de xale yi sa xale yi am nga doole sa xale yi leer jeex bi ëkk bi la doole la ñëw maay puus maay daan jeex moo tax ngay daanu maay puus maay daan yaay puus yaay daan maay puus maay daan jeex mu la jàpp si laa fooy bañ ma jaarale fooy bañ fi naa la fa jaarale fooy bañ fi naa la fa jaarale jeex munoo bëre amoo doole. jëlal bëre aw doole mais man maa daan. maa daan di la siyaat di la delloo njukkal. bisimilah rahmaani rahiim ñu lay fay fiis mm-hmm. di leen delloo njukkal. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax di julli ci yonent mm-hmm. euh, euh, xale yi def nag waa jàmbaar. lu rëy lu sori la ci man mhm. parce que dama judd ci làmb ji rek yàgg ko cibre mhm. bi ma commencé dem làmb cinquante trois la mille neuf cent cinquante trois mhm. te nag yàlla dimbale na ma ba nga xamante ne yooyu fa passionné yëpp dafa nekk loo xam ne c'est tout frais ci sama bopp bi mu ma mel ni démb ay combat yoo xam ne ay drapeau yi fi mu jaar boo ñëw ci ñoom mbéygee ci ñun ñi ñëpp yàlla dimbale na ma ba nga xamante ne dafa enregistré wu sama bu fàttewu ma si dara loolu nag des fois nit yàlla daf koy bindee noonu mhm. di fàttali ko yu bare bare bare mhm. euh, c'est mhm. euh, mu doon loo xamante ne euh, père ba ci boppam laa njëkkee parce que lépp moom la dafa toog seet nan lay jàppale xale yi xelam may ko mu xëccee papa ne ko kaa ñu ubbi écrit ngir mën a dimbali waa parcelle ak yeneen mbër yi. parce que c'est la seule façon boo xamante ne moom la mën a def pour aider xale yi. évidemment mbëru parcelles yi. yàlla dimbali ko ñoom ñoom ñu suude wu nekk benn. parce que loo mën a dégg parcelle moom turu écrit fi nekk mais benn écrit fi nekk parce que ñoom ñooy écrit bi. du tur bi mais mbër yi ñooy écrit bi. ñoom nag ñoo accepté bokk ndey ak baay buggante bu mu ëpp. forme benn écrit di entraîner ensemble loolu amul fenn. Mhm. fii rek la am. donc loolu moom la ci jublu jublu wu ci daf ciy wut lii wut lële. Mhm. dafay seet façon bu muy dimbalee xale yi. pour mu gën a yaatu. moom mu ngi def lu mu mën ci adduna bi ak mbooloo mi waa ak waa parcelle. Mhm. mais lii da ñu mësul laal suuf. que day bëre samedi bëre dimanche bëre tous les jours que Dieu fait Cheikh Mbaba moom nga gis. te tolluwuloon ne gars yi am beneen façon bu bëre lu muy song. toute sa vie euh, bi muy jël drapeau bi boobu tuuti naa trop mais keroog sama kanam la bi mu koy jël ci Abdou Njamb Gueye bu jandeer waaw waa ngi toog fi euh, la préparé treize ndiir pour mu ñëw daan Cheikh Mbaba kër googu kii juddoo papa mii ci biir kër googu la arène bi nekkoon muy arène arène Madoune Khoule biir kër gi papa Sow juddoo mooy arène Madoune Khoule tamit fa doon tëgg ay làmb tukulóor ak ay yooyu ci biir kër googu ci biir kër googu parcelle bi si sax moom suñu ubbee suñu fenêtre dañuy seetaan ne làmb ji kër googu fii moom mi foofu la juddoo ak kër ka séeram pero ji réyoon na réyaay boo xamante ne man su ma doon dugg nii dañuy gàddu euh, ndindu géwél yi pour ñu mën leen ñu duggalaale mm-hmm. noonu la daan ci jamono waaw man maa doon dem seen kër ñoom yees dem mm-hmm. gàddu ji foofu ndënd mm-hmm. yóbbu ko fi laay mën a dugg macha allah <laughs> macha papa am na solo lool ci histoire yi nga xamante ni tey nettalu nga ñu ko ci làmb waaye tey bu jàmbaar demee ba jël drapeau tuddee la ko loo yaakaaroon na ci làmb de. Ah, dëgg yàlla nag parce que xalaatuma woon ah, xalaatuma drapeau da dul caaxaan ci hmm. làmb hmm. hmm. ah, loolu nag eh, du ci dara lu muy per ba man dama yëg ne dafa fonk fonk boo xamante ne jox ma cër boo xamante ne mënuma comprendre amul fu muy dem ci mbooloo te du ma man daal père ba moom mënuma wax ay mbiram c'est grâce à lui lépp moom la man suur ñëw tegu gis ni papa mel ci man moomu mel ko ci nu ma raw daf ma woo fii rek ne ma danga ma ma am na benn affaire dama ne lan mu ne ma drapeau bi ñëw daal yow laa ko bëgg a tudde ne ko lan mu ne ma nag teguma la dara mhm. laajuma la dara mm-hmm. dañ la tuddee drapeau bi rek waajal ko yow ci sa wàllu bopp kese mm-hmm. tout ce qui est affaire man maa ko euh, loolu sa loolu nag xam nga doo ko mën a commenter bànneex bi nga ci yëg ak ni nga koy gisee ak ni muy rëy ci yow mm-hmm. ah, doo mën a wax lu muy un grand merci sagal na ma bëggal na ma delloo na ma njukkal ah ma def dara lu may ñaanal ko yàlla suñu borom bi rek. amiin yàlla na yàlla nangu ñaan ni waaye père. mbër yi en général bu ñu amaan combat wala yu mel noonu euh, kuñ ci wax rek su paree day day woote xanaa di woo képp koo xamante ni ay la woon ci Papa ci Ouza wala sax mu nekk sa soppee sa xarit yeeg yëpp nga woolee ci euh, xam nga euh, bo lamb ji jot naa ñi nga xamante ne ñoo fi des ci mbër yi te ma bokk dajeeg moom tuuti jamono. parce que man pratiquement ñun xam nga Birahim ñoom ak ñooñu suñuy suivant lañu. Hmm. man mii sax xanaa suivant ñoom Mbaye Guèye parce que man maa mag ñoom Mbaye Guèye. Hmm. loolu ñoom ñooñu ñëpp nag ku ci nekk woo naa la. Hmm. waxal la ko euh, su ma xamee su ma limee. nii continuer continuer dina am damay am problème. mais en tout cas daal képp koo xamante ne euh, sama xarit nga démb ak barke démb sama xaritu faas yi mm. nga xamante ne ci écrit boobu laa nekk ba nii mm. euh, supporter papa ay waa parcelles yi képp koy sama am du jàmm rek maa ngi lay woo ci bés bi mm. voilà am na euh, ñu jël drapeau tey tuddee ko delloo ko njukkal ki nga xamante ne mooy sa papa ak li nga def ci làmb yëpp boo gisee lu mel nii ban ban yëg-yëg nga ci am ak nan lay def ci waa waaw jërëjëf Jili ñu ngi nuyu assistance bi teew yëpp nuyu mbokku internet yëpp ñu ñuy suivre yëpp ci àdduna di leen jaajëfal di ñaan ñëpp jàmm di leen ñaanal ci assura bi mm-hmm. yàlla nañ ko yàlla may ñu teew koy ati ati ati at incha allahu rabbi waaw lii mbégte la rek ndax man bon bu duggee ci group jàmbaar bi annoncé drapeau bi. maa ngi doon tooñ sax di leen mbala quoi. Mm. di leen a sànni ay xeer pour man ay ay la sax quoi. Mm. bi la onze ba di jege si ma xam ne kon lii ñu fowuñ si dëgg la nekk quoi. Mm. ndax boobu ñun ñu ngi doon ut euh, maa ngi doon xaar man ay yeneen parrains yoo xamante ni tey jii. ci beneen domaine la quoi. mais gars yi nañu noonu sa waay paa bi dañ tuddee drapeau bi may ba lañ tuddee drapeau bi ba ci suuf ba ci yeneen drapeau bi drapeau Moussa Dioumbeek drapeau Père Gora yeeg yëpp quoi mhm. yooyu daal ñu moom trophée nekk trophée loo xamante ne rek ay trophée de reconnaissance lay nekk mhm. utuñu ci xaalis utuñu ci dara dañuy xool képp koo xamante ne nii mos ngaa sonn ci làmb mës ngaa daj dara ci làmb wala suñu la boo xamante ne nii suñu nitu dëggantaan nga ñu tuddee la affaire yi quoi yaakaar naa ni sax loolu moo ëpp nga ëpp yëg-yëg ki ngay tuddee drapeau di xaar ci moom dara. Mm-hmm. ñaari tout le temps rek day am ay réeroo diggante promoteur ba ak. Euh, mm-hmm. ak parrain bi wala mbëri si bëri ak parrain yi. Mm-hmm. mais lii lu naturel la. xam nga ku fekk gal gi noo toog nga tuddee ko làmb xaaroo ci moom dara. ne ko nag lii xew ci juub yëpp maa ko yëre booy sol sax maa la koy jox. xam nga kooku utu ci dara dara dara dara. ko fekkee ne ko jox ko si ne ko da ngay jënd basin pour le onze bi mu a ma non non may ba jëndal na ma li ma war sol dimanche. am naa yére ba pare quoi Mansour jox na may ba mu jëlal ma yére yi mu war a sol ba pare man waaw alhamdulilah kon sa wërsëg la jël nga téye quoi waaw mm-hmm. ah, di jaajëfal rek famille Ba yëpp nag mm-hmm. famille Ba yëpp mais bu ñu jaajëfal Ba it dañ koy euh, ci loxo Adja Ami Dramé mm-hmm. ndax it euh, yombul de fii kër gi yow yaa ngi fii ñëw leneen ba deux heures du matin dañuy téye père ba ci kaw kilifa bu doy na moom ba deux heures du matin ak waa gaale bi dérangement beeg nangam nangam c'est parce que euh, mais Dramé moo yaatal. moo jël ñëpp def leen ñëpp da leen doomu. moom boo koy xam ne la lay wax sama kër jàmm rek laa fi ñaan bu ñëw leen rek ñëpp sama ay doom la ngeen ngeen fi jàmm ànd si jàmm léegi des si biir moom ñëpp dañuy ñaan yàlla rek li fi ñëpp yaakaar seen xel fi ñëw ak luñ fi ut si yëpp yàlla bu yàlla tas yaakaar. ndax yaakaar dafa foor te it alal dafa sax ci xool ba telle sorte nit bu koy génnee. Euh, am ñoo xam bu ko génne a métti si ñoom am ñoo xam bu ñu ko waree génne te génne wuñ ko day métti si ñoom xam nga dégg nga wala déet am bu ñu waree génne dara seen seen ñaq day métti si ñoom am ñoo xam bu ñu ko a génne te génne wuñ ko day métti si ñoom loolu nag loolu moo dal loolu Ba moo dal Mansour moo dal famille bi yëpp quoi ñoom dañoo jël euh, li ñuy am mu néew mu bari bokk ak ñëpp ñaan yàlla yàlla yàlla nga a doole sutura di jox ñëpp rendez-vous dimanche incha allah rabi arène nationale ñëpp ñëw ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm te ku fa ñëw tamit yàlla la nga fa ut si yàlla ko yàlla sottil mooy nga am ci mbégte li ngi jaajëfal jafal waaw ñu lay jaajëfal bu baax euh, am na solo macha allah papa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ñu sant hmm. euh, léegi suñu ànd ak père ba dafa yàgg hmm. bi nga xamante ni macha allah yàgg ngeen ko dégg mu fi jaay ay tissu di di fi liggéey macha allah nekk nit ku baax may tey ñu ñëw honoré la ci bis bi nga xamante ne bis bu mag la ak lu làmb ñëpp dañuy xaar bis bi ban yëg-yëg nga ci am. Euh, Jili maa ngi lay nuyu. di la fay yaa ñi nga àndal ñëpp. Mm-hmm. waaw di nuyu sama waa kër. Mm-hmm. di nuyu ki ma tuddee drapeau bi ba pare. Mm-hmm. sama rakk la. maa nàmp jox ko. waaw mu jël drapeau mu tuddee moo ko lu rëy la loolu moo gën a ndaw ci li may defal. drapeau bi moo feeñ rek mais loolu moo gën a ndaw ci li may defal. waaw. am ci contentement bu mag. waaw sama xol sedd na ci lool sax. Hmm. Mhm. équipe bu jàmbaar production ak may ba ban affinité ngeen am ci biir. Mhm. bi koy tuddee nan la def ci jàmbaar famille la. Hmm. avant jàmbaar famille lañu ba pare ñun. Hmm. jàmbaar soogu ñëw. samay mag lañu samay raq lañu. ñu nekk benn di foo di kaf di ree. yeneen jàmm ñu bokk papa ji. muy père ba bokk yaay ji. kon jàmbaar sama yëf la laa bokk. Hmm. samay maga fi nekk ak samay rakk. Hmm. Hmm. Ah, tey nag bis bi. ak lu làmb yaakaar naa ñu bare bëri ñu ngi koy xaar te événement la ci biir événement yi nan lañ mën a xaaree may nan la fas yéenee ñëw arène nationale ndax gars yi nee nañ mën na ko dëbb ba mu mokk xaw ba xam da ngay dëbb. waaw mën naa am nag ci le 30 incha allah. ndax bi daa rëy ci man. mu ne mën naa am nañu xaar ay surprise yu doy waar. le 30 incha ndax du yomb. macha waaw waaw maa ngi fii ah. nag ah. ci biir naa seen chic bay pulo maa jaay tissu rafet yi hmm. broderie rafet yi parfum hmm. yaa ngi fi lépp a ngi fi hmm. waaw maa ngi nii ku bëgg tissu rafet daal da nga ñëw fii am naa bu góor bu jigéen lépp laay jaay mhm. kon rendez-vous le 30. le 30 incha allah dimanche waaw dimanche du yomb moom. dimanche rek du yomb incha allah nañ ko wàcc. waaw maa ngi amaale occasion yi pour dama am benn événement bu may préparé. Mhm. Euh, le 4 5 6 août incha allah. Mhm. benn vente privée bi ñu organisé waaye Dabaye Events organisé ko. Mhm. le 4 5 6 maa ngi woo ñëpp. képp ku xam may ba maa ngi lay woo di woo samay xarit samay am di jàmm samay mbokk ñëpp. maa leen woo ci sama bis boobu ñu fekk si ma. ses le pavillon Sénégal. incha allah maa ngi woo ñëpp. samay mbokk samay xarit ñëpp. waa axlu làmb ñëpp. mbëri bu ñu bëree ba pare. dañ ma fekk ses. incha hmm. allah waaw. suba lay commencé ba guddi. à part 10 heures ba 22 heures incha allah. Mhm. maa ngi nuyu nag ñëpp di kontaan ci drapeau bi bu baax a baax a baax a baax. Hmm. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup Djily. <laughs> ba tey ñu topp ci drapeau bi nga xamante ne tey euh, jàmbaar production dañ ci rendre hommage ki nga xamante ne mooy Moussa Dioum Moussa Dioum nag bu ñu ko waxee ñëw seet si ku mel ni goo Faye nga xam ne macha allah ñëpp xam nañ ko ci ci parcelle ci jeunesse parcelle bi ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi ko yan témoignage nga ñu mën a defal drapeau bi nga xamante ne day dañ koy rendre waaw jërëjëf di nuyu téléspectateur seen chaîne bi yëpp. Mm. di waa jàmbaar production bi nga xamante ne ñoom ñoo organisé combat bi. Mm. mais di leen féliciter aussi di si choix bi ñu choisir Moussa Dioum pour màggal ko si combat boobu parce que loolu bu ñu ko defee rek ñun lañ ko defaral. Mm. parce que Moussa Dioum dafa nekkoon suñu xarit. nekk suñu frère. nekk ko xamante ne dañoo demoon ba nekk benn la preuve ki may àndal muy Lamine géey rakk Moussa Dioum lay denc kon xam nga ne euh, ànd boobu xóot na te sori woon na donc yàlla def li gën aussi euh, jël ko ñu koy ñaanal yàlla mu xare ko àjjana euh, di ñaan yàlla aussi li nga xamante ne moom lu bàyyi si ginnaawam ñun ñu mën a am kàttan ba mën leen taxaw taxawaay bi nga xamante ne Moussa Dioum fi nekkoon noonu lay taxawee si ñoom du dëgg donc boo leen tuddee combat bu mel noonu nag dafa mel ni ñun ngeen ko tuddee. parce que day ne rek ne Parcelles Assainies am na ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy wey dawlu yi. mooy ñi nga xamante ne tey euh, nekkoon nañ fi bind les pages de l'histoire sportive des Parcelles Assainies ba ngeen leen ko màggal kon di di wax rek ne loolu c'est quelque chose à saluer et am nañu honneur. aussi ngeen def ñu defal ñu loolu quoi di wax rek ne mi ngi si profité di woo waa Parcelles Assainies yëpp. di wax ne jàmbaar production. Euh, ay Parcelles waa lañ dañoo soxla ku leen teg loxo ñu ñun waa Parcelles Assainies donc di woote si combat bi aussi képp koo xamante ne soppee Moussa Dioum nga nga ñëw combat boobu nga teew si wane ne à la mémoire de Moussa Dioum mm, Parcelles Assainies ba léegi mu ngi sunu xel yi quoi. Mm-hmm. lan ngay gën a waaw Moussa bëri na xam nga moom c'était quelqu'un bi nga xamante ne fu mu toog dafay def ambiance quoi. Mm-hmm. quelque part dafi doon ñëw maak moom tamit ñuy def PlayStation lu bëri. Mm-hmm. donc euh, moment yooyu dañu ci doon waxtaan di def ay ambiance wala quelque fois bu ma wàccoon dem si école bi ñu entraîné. dem seetaani seen sport wala sax buy def buy def ay entraînement de boxe quoi parce que c'était un bon euh, puncheur. donc y a de choses yi nga xamante ne dañ ciy fàttaliku si dernier moment yi aussi gisante wuñ lu bëri. mais maa ngi doon dégganteeg rakam bi nga xamante ne bàyyilaat di ko saluer au passage mooy caatu. caatu caatu Moussa Dioum moom nag moom tey moom la ñuy xoolee Moussa Dioum quoi di wax ñoom lamin rek ak waa Jàmbaar production. dañ ko bàyyi xel bu baax a baax parce que tey moom mooy représentant Moussa Dioum fii su suñu gox bi quoi. di nuyu de passage Lamine Gueye bi nga xamante ne ku ko gisoon Moussa Dioum. ci biir euh, combat xam nga ne dañ ne butéel bi Moussa Dioum di. di xëppoo Lamine moo ko koy xëpp mm. mu takk rakk Moussa Dioum aussi kon kooku moom mm. tamit mu ngi taxaw taxawaay Moussa Dioum ba léegi si si ñun quoi. Mm. am incha allah incha allah dinañ si ñëw. parce que duñu ñëw pour suñu bopp kese mais dañuy ñëw pour la mémoire de Moussa Dioum mais aussi pour encourager jàmbaar production si liggéeyu rafet bi nga xamante ne moom la ñuy def. ak euh, chaîne yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu si wàllu sport yëpp. ak euh, particulièrement la lutte quoi. Mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal. sant di leen gërëm. jërë ngeen jëf. bu leen bu ngeen delloo ginnaaw tuuti xam ni dimanche bi ñu jëm dafa am bis bu rëy boo xamante ni tey jàmbaar production dafa jël cër bi dara jaalee ko ki nga xamante ni mooy ndem si yàlla Moussa Dioum musaa Dioum nekkoon kenn koo xam ne ci njabootu làmb la bokk nit ku baax nit ku yaatu nit koo xamante ni boo ko séenee. kaf ak ree ak for rek nga koy xamee ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana la mu jëm yal na ko dàq loolu fi mu jóge kenn du wax Moussa Dioum na te doo tudd grand zëmkan kan na nekk kenn koo xamante ne Parcelles Assainies liggéey na fi lu baree baree bare ci wàllu politique liggéey na ko ci écurie bi nga xamante ne tey moom moo nekk président écurie ba muy Moussa Dioum écurie euh, ja euh, nu mu tudd Parcelles mbooloo ñu koy jaajëfal bu baax jàmbaar tey dañu ñëw seet si la ndax kat bu ñu jëlee Moussa dara jaal ko bis kenn mënul kenn mënu laa tëb kenn mënu laa jéggi. bis boobu ban yëg yëg nga ci am grand. jërëjëf Djily. Mm-hmm. maa ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu àdduna bi yëpp. Mm-hmm. parce que yaakaar naa ne internet yi ma tim tey. Mm-hmm. dañu war àdduna bi. donc ñu gën la ci xam tey yow ngay doomu parcelle muy Djily. seen Lamine na lay toog ak Bamba. Mm. defe naa ne yéen ñu ci bari ci làmb tey bokk ngeen ci ñu ko innové. Mm. donc bu ngeen ñëwee di ñu laaj ci lu mel noonu. Mm. balaa ñuy wax dara rek dañ leen remercier. di seen taxawaay ci wàllu làmb. vraiment fi ñoom bekkaay ak euh, ñu bari tegoon seen tànk tey te ngeen fa seen tànk. ngeen ay fierté di yaakaar. bu wëlbati ko ànd ak seen i morom. ñuy tëgg. ñu mën ci xàmme ki toog sama wet rek. muy Ibou ànd waa Ibulaay ak euh, Jamaïcain Mële mm-hmm. ah ñu ñu ak aussi seen rak mm-hmm. waaw ñu koy sama jour mm-hmm. ah doomu père Ba Mansour Ba sama joueur maa yoroon bi ma nekkee Santhiane moo doon suma capitaine ah daw jël na meilleur joueur ci zone football la gën a mën de ah waaw maa doon coach am donc bu duggee ci làmb tey ngeen ñëw di ma laaj ci bés bu mel nii mbégte lay doon ngeen fekk ma aussi si suma kër maa ngi dëkk fii rek mais man fii mooy suma kër ndax ñi toog ñëpp sumay frère lañ jibee ngi ne toog xaadima ngi toog tanoor a ngi ne le man fii laa dëkk te ñoom ñëpp ay amateuru làmb lañ kon li may laaj kenn ku ci nekk ñoom mënoon na ko tontu mais di am mbégte ci bés bi ngeen jël dara jaaleel ko jëm si yàlla Moussa Dioum waaw ko wax nga ko léegi écurie bi nekk nañ fa dix ans ba bi ñu koy joxe sax dañoo mujjul nangu dama mujj bind lettre benn CNG benn secrétaire général bind benn sunu làmb ne leen amatuma jot pour coordonner ci euh, écurie bi. Hmm. ba léegi nii sax nangu wuñ ko accepté wuñ ko. Hmm. mais comme Passe Sène mi ngi fa di coordonner nekk moo mës a nekk la coordonnateur. Hmm. bu nga xam ne mooy écurie parcelle mbooloo moom lañ bàyyi liggéey bi. mais di wax ne écurie boobu ci jàmm rek lañ ko yor. ba biñ fay jógee nanguwuñu waaye sant yàlla parce que yàlla. Euh, mooy dogal ay mbiram. donc ngeen dajaraat dara dara jaalee ko koo xam ne aussi doomu parcelle la. di doomu Sénégal déemu réew mi. damay wax ne Moussa Dioum peut-être li mu am ci làmb mhm. bokk na ci nga xamante moom rek la ko yàlla defal ci làmb mhm. benn combat rek la bëree bëre grand komba mhm. loolu lu jafe ci mbër la donc loolu day wane ne rek am na talant day wane ne mën na bëre waaye day wane ne yaakaar la donc bu jàmbaar defee lu mel nii dara jaalee ko ko tuddee ko ko delloo ko njukkal. Mm. vraiment ñëw seet si ma man damay mbégte. Mm. kon jërëjëf sëñ Jili. Mm. waaw macha allah mu nekk loo xamante ne tey Moussa Dioum. bari na champion yi nga xamante ne ñu ngi leen di tudd ci làmb tey. tette na leen jàppale na leen teg leen loxo ku ci mel ne le roi des arènes Modou Lo. chaque jour day wax ay anecdote yoo xamante ni. dund na ko moom ba ci rawatina dàll bi nga xamante ne woon simmi woon na ko. moom Moussa jum joxoon ko. moom Modou Lo joxoon ko Moussa Dioum. ngir ñu ànd benn mbapat bu mu ko. relation sacré yu am solo mm-hmm. relation yoo xam ne aussi seen mag Moussa Dioum mm-hmm. bokk na ji nga xam ne ñoom ñoo am inspiration boobu mm-hmm. fexe doomu parcelles yi ànd euh, maa ngi fàttaliku combat Moussa Dioum ak euh, Ouza dañu bëree ba pare guddi gi yëpp ñoom ñaa ñëpp dañu fanaanee jooy parce que du woon lu leen gënal du woon lu neex ci ñun bëgguñu ko woon Modou loo Moussa Modou loo ak euh, Papa Sow aussi noonu la demee dañu bëree ba pare ñu ñëpp kenn ku nekk xat kenn ku nekk am gàccay génn am kersay génn ñu ñëpp mag ñi parce que woon mais dafa fekk làmb dafa am nu mu tëddee woon parce que comme ñoom écurie Fass lañ ne woon mais ñoom ñëpp doomu parcel lañ te ñun suñu rêve rek moo doon doomu parcelle nekk benn sa jili yow xam nga li may wax bu baax fépp fuñ suñu doom nekk fépp fuñ suñu doom nekk ci àdduna boo ñu yëgee boo yëg ñu ngi lay bàyyi xel parce que genn golo gunna waaye loo ci laal borom yëg ko ñun parcelle rek la ñu am parcelle rek la ñu bëgg bëgguñu keneen topp ñu keneen parcelle rek rek fépp fu doomam nekk lépp loo mën a yëngu ak noo ko noo ci mën a yëngoo xamuñu baax na xamuñu bon ñi ngi sa ginnaaw te loolu moo ñu daloon diggante Moussa Dioum ak Modou Lo ak Papa mi Papa liggéey ci liggéey bu am solo nag liggéey bu am solo damay faral di wax benn affaire nee naa leen soo bëggee gis mbër mu yaru dama seeti Moussa Dioum yaru na am na nay teggin yaru na am na ay teggin te lu jafe ci mbëru làmb la donc ñu ngi koy remercier bu baax di ko gërëm parce que initiative bi loxoom génnu ci jili loxoom génnu ci du noppi di ma woo wallaay ndeysaan du noppi di ma woo waaye pour lu baax pour xale yi nekk benn parcelle nekk benn parcelle am jàmm. kon jëmm ju mel noonu soo ko amee ci gox bi nga dëkk nga nekk mag da nga koy remercier ji kon papa yàlla yàlla guddal fana drapeau musa Dioum waa parcelle mbëri nan la ñu war a fas yéenee ñëw dimanche bi ñu jëm. ah loolu loolu xam nga ne loolu ku mel ne Moussa Dioum wala Franck yi. Mhm. waaw ah, Franck xam mhm. ñooñu ñëpp ci doomi Moussa jum lañ. Mhm. ñooñu ñooñu Moussa Dioum moo leen tette. tey fran bu nekkee meilleur lutteur du Sénégal. meilleur lutteur ANC. dëgg dëgg dëgg champion d'Afrique. nekk meilleur lutteur lu simple du Sénégal mais grâce à Moussa Dioum Moussa Dioum tete na ko mhm. Moussa Dioum ànd naak moom ci mhm. bés yu mag yëpp mhm. gunge ko am lu mu def ci moom ku ne xam ne ne Moussa dafa mën a bëre bokk na ci mbër yi mën a taxawaat ne damaa mën a bëre kenn du weddi mussa bokk na ci ñooñu donc bu amee ci keppaaram ñu mel noonu ay jum deux ay ay ay ay zëmmu ndaw sama turandoo ay ay franc ay xale yooyu donc vraiment ku ne xam ne ne parcelle kon ay champion judd nañ fi màgg nañ fi te incha allah rab nañ leen dégg ci làmb soobee yàlla ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf jii li kontaan naa merci encore jërëjëf ba tey ñu ngi fii su suñu kër papa euh, muy suñu papa bu dudu Dieng Mboub euh, ñu xam ko ñëpp ñu ci bari ci làmb ràññee nañu ko moom mooy turandoo Modou Xarañ Lo le roi des arènes papa sa digganteeg Moussa Dioum yaakaar naa kër gi benn kër moo dox ci diggante bi tey jàmbaar production tëgg bis bu rëy muy dimanche bi ñu jëm di ci fàttaliku ki nga xamante ne mooy ndem si yàlla Moussa jum mm. ñu di ko ñaana yàlla suñ borom yërëm ko te xare ko àjjana fële mu jëm dàqal ko loolu fi mu jóge mm. initiative boobu xale yi def dëkk parcelle ban yëg-yëg ngeen ci am yéen ñi nga xamante ne yéenay kilifa yi tey waaw ñu leen di ziar di leen di leen ziar ci bés bu rafet bi mm-hmm. muy bësu tam mm-hmm. di Azura. Mm-hmm. ñu leen ci sant di leen gërëm. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla it yàlla def leen jàmm. Euh, yokku leen bu baax. di ñaanal euh, sama turandoo. Modou Xarañ yàlla defal ko ndam ci yi mu jëm. ko wér. yàggal ko bu baax a baax a baax ndax bàyyam sama wóllëre la te nit ku baax la te dama ko dénkoon nag waaw looloo tax ñu defal ko googu ñaan pour yàlla defal ko jàmm ñoo ngi koy saluer di ko nuyu di ko ziar di ziar mbokkam yëpp ak xaritam yi taxaw jiital ci papa ak euh, ibulaay waaye ñoom ñi ñëw teew ba tax lii am bon ci biir loolu it mm-hmm. euh, ba produc producteur jàmbaar production mm-hmm. bi nga xam ne moom it moo tëgg mu Saajum mm-hmm. et ñun dañ ciy bëgg ndax dafa tëgg lu rëy mm-hmm. ki mu tëgg drapo ku ko mérito la waaye mérito na ko ci qualité yi mu def ci làmb mérito na ko ci yar ak teggin bi mu defoon fii ci koñ bi ak màgg gi mu defoon fii mm-hmm. ndax ku respecte woon doomu aadama la mm-hmm. ku ñu joxoon cër la aussi mm-hmm. wéetal nu nag boole ci wax dëgg yàlla ndax koñ bi moo ko daa animé et seq ñëpp jàmm maase xale yi respecté mag ñi diine jéeg fépp daf ci doon dox te xale bu baax fa mu tëdd yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko sëñ Tuubaa jàpp euh, jox ko Seydina Mohamed ñu tàbbal ko àjjana yal na am ndax loolu moom mérito na ko wax dëgg yàlla. di mhm. di gërëm. Mhm. di gërëm aussi ay waajuram. Mhm. ndax baayam da da koo bàyyi woon ak ñun. ndax moom immigré la da daa tukki di dem di ñëw. këram dama ko dénkoon. waa këram yi yëpp kenn du def ci kër gi loo xam ni. ñëwoo ba fii. moo waral seen présence fii. ndax xam naa ni bu ngeen fa newoon it même bu ma fi newul. bala muy wax ak yéen dina leen yebal fii. te looloo am. ndax dama ñëw léegi xam nga man maa ngi ñëw di jàpp di waajal timis ji mhm. ci la papa dugg ak euh, ibulaay mhm. di ma saisir pour lii mhm. nga xam loolu mooy yoon tey moom la mu jàppoon ba tey bawu ko confiance ba mu amoon ci ñun it dénku nuy doomam wax dëgg yàlla changé wu ci den waaw même si yàlla Moussa Dioum ñun ñi nga xamante ne ñoo bokkoon ak moom ci kuréelu làmb saa yu ñu ko gisaan bëñam la ñuy njëkk a seen mu bari jàmm lool mosuñu ko dégg ci dara lu ñaaw gox bi mu dëkk ci koñ bi mhm. nan dëkk nan la dëkke woon ak yéen waaw Moussa dëkkin bu rafet rek la fi mës a dëkk ba muy tout tànk mhm. ba keroog ba muy wuy ji boromam mhm. na meloon rek la mel mësul changé ci àddina très simple succès yóbbuwu ko waaw ndax moom tey bu demoon am bu bu amee victoire ca làmb ja sax bu subaa boo ko fekkee da nga naan du kii moo doon bëri noonu la ko yàlla bind mhm. noonu lay def fii noonu la def reefon nga mu dëkk mhm. ñëpp la amaloon jàmm mhm. amoon jàmm aussi gis naa ko moom ak jàmm presque écurie yëpp. Mm. ba doo xam sax day comprendre. Mm. ci ñan la ndax moom làmb daf ko jëlee rek sport. Mm. waaw dina ñëw ci ñoom xarañ di ko seen ci waa kër Double Less yi. di nga ko seen dans les autres euh, écuries yi. du dëgg di ko gis lamb ji muy défule ak ñëpp. ba keroog gis nga bi mu génnee àddina amul lamb ji ku des. Mm-hmm. la ko dalee ci ministre président de la république ci premier ministre ba ministre des làmb yëpp askanu làmb yëpp ay yendu fii ñëw fi waaw ay fani fan te ba léegi ñoo ngi koy jaal moom jàmm jooju la amoon ak nit ñi nit ku baax la woon nit ku am ouverture la woon c'est un homme très intègre waaw respecte doomu aadama di rassembleur boole ci c'est un grand rassembleur waaw ndax moom dina fekk ñu xuloo sax dina leen boole ba nekk ay xarit loolu moom sedd nañ ko ci moom waaw fii mu dëkk ak euh, yeneen quartier yi mm-hmm. yëpp Moussa mënoo xam ban mbedd la ci dëkk xanaa nga dëkk fii mm-hmm. kër gu ko neex la yenn weeru koor fii la yenn guddi fii lay ne di anime ba suba mm-hmm. wax dëgg yàlla nit ku baax la waaw ñi ko dëggal làmp ji juumunu ndax dëggal nañ ko ku mag wax dëgg yàlla loolu loolu gis nañ ko ci moom lu vraiment dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana defal ko defal ko tawfeex yu bari foofu waaw loolu daal lan am luñ koy ñaanal quoi waaw di gërëm sama gaa yi toujours di leen gërëm di leen ñaanal jàmm yéen it ngeen gën a am jàmm waaw loolu la loolu rek la merci beaucoup jërëjëf mm-hmm. waaw ne euh, jàmbaar production dañu ko jël euh, delloo ci njukkal ki nga xamante ni mooy ndam si yàlla Moussa Dioum di ko ci fàttaliku kii nag magam la ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay muy jéey vraiment nekk koo xamante ni boo ko xoolee rek xam ni ñoom ñaar ñoo bokk deret macha allah tey jàmbaar ñëw seet si leen bis bi nga xamante ni dañ ko jël delloo ko njukkal Moussa Dioum di ko ci fàttaliku ban yëg-yëg ngeen ci am. waaw li muy njëkk a def mooy sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur. lii ngeen def moom mbégte mu rëy rëy rëy la si ñun. Mhm. ndax Euh, nit juddu fi. Mhm. dee fi. Mhm. ñu fàtte ko. Mhm. waaye lii ngeen def wone ngeen ne ba tey musaajum fàttewu leen ko. te ñu nit amatuñ si lenn. lu dul lu mel nii rek. waaye toujours ñu ngi koy ñaanal tooy sàkku si adduna bi yëpp. ñu dolli ko di ko ñaanal. ndax moom ak ñam fa fekk ak ña ko fa fekk yëpp yàlla na leen saa borom jéggal te leen. te xare leen àjjana. waaye lii moom surprise bu mag a mag a mag la mm-hmm. si ñun mm-hmm. mais ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax a mm-hmm. euh, mu mel ni décès Moussa Dioum ba tey mu ngi des ci xelu sénégalais yi waaye mu ngi du jóg mukk ci xelu ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo bokk ndax tey léegi rek euh, am na ku ma confirmer ne papa bi mu duggee ak maire bi rek bu nu ci sax wax ndax bu ñu tuddee turu Moussa jum rek mu tuur xewal. waaw xam nga moom dafa jege Moussa da ko jege woon. ñun ñëpp daf ñu daan maire bi daf ñuy tooñ. moom noonu la mel ak njabootam. dafa bëgg doom. mais Moussa bu demoon ba quatre heures du matin. wallahi bu ñëwee day fëgg maire bi te loolu kenn ñemewu ko. mais da koy fëgg ba maire bi gis ko mu gis ko ñu kaf waxante. mu doog ko yeewi Moussa dem ubbi néegam dem tëddi. xam ne loolu ko ñemewul dëgg mm-hmm. ñemewoo ko ko def mm-hmm. to xëy na tamit li ma lay wax ne dafa bëgg njaboot ñun ñëpp la yemale mais loolu mel na musaa rek moo ko ñeme woon. maanaam Moussa du woon doom ci moom. mais xarit la woon waaw moom rek moo ñeme a fekk maire bi tëdd mu fëgg ko. Mm-hmm. man mi maay taaw fii si kër gi. ñoom ñëpp samay rakk lañ. mais li man ñemewuma ko xalaatuma ko. waaw mais tamit yim jagle suñu boroom la rek. Mhm. waaw loolu la ko suñu borom jagleeg maire bi. Mhm. ñun tamit dañu xam ne loolu la. Mhm. waaw ku ne bëgg ngaa mel noonu ak sa yaay. waaw maire bi moom ba léegi waxuma yéen sax ñun ñii rek ku si dugg néegam tuddaat tur boobu rek. waaw dañ koy gis day soppeeku. ba ñun sax dañuy éviter loolu. waaw des na bu baax du si moom rek la des nag ñun ñëpp dafa des si ñun. waaw ndax euh, perte bu rëy rëy rëy la. waaw mais nag. dañu xam ni dogalu sunu borom la ndax euh, li ko yóbbu du yaafuusam liñ fi bàyyi du sunu njàmbaar to xaw ma yéen a ngi fi doog a ñëw ma ñëwoon ngeen fi defoon naa si interview yi ba ne doot ma waxati sax si affaire yi ma ne doomu aadama bu ne bu ne balaa ngaa tëdd war ngaa toog ci sa kaw lal laaj tey lan nga defal sunu borom bu ne ndax balaa ngaa tëdd war ngaa toog sa diggalal xool tey lan nga defal sunu borom ndax sunu borom tey yow lépp satisfaire na la ko yow est-ce que satisfaire nga ko te pourtant yàkkamtiwul de bu ko neexoon ca saase li mu la bëgg a def dala koy def mais yàkkamtiwul xam na ne tôt ou tard di nga ñëw soobe yàlla waaw yàlla nañu yàlla saxal si njub rek te def ñu ay dëggi dëggi jullit ci barki alxuraan waaw jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf hmm. ñu lii nag moom. Hmm. ñu ngi leen di ñaanal suñu borom kattanal leen. Hmm. te ñu ngi ñaan si màggaayu suñu borom. ak si barki Seydina Mouhamed mi nga xam ne moo ko tànnal boppam. jiital ko te ñun ñëpp ñu nangu ko. yàlla na bés bi rëy rëy ba waa jàmbaar si boppam bés bu ñu amati rek moom raw boobu. si barki alxuraan. yàlla nañ ko sunu borom def yéen ñii tamit yàlla leen sunu borom yokk. ba ngeen yëg ko. si barki Seydina Mohamed yàlla nañ yàlla may gudd fan. Hmm. ak wér ak wér la ak mucc ak mucc la. Hmm. si barki alxuraanu karim. lan nga mënul fàtte ci Moussa loo xamante ne bëri na bëri na bëri na <laughs> non bëri na balaay bëri na bëri na waaw xam nga. Hmm. damay suma toogee sama néeg moom pour moom man dama mer. day ñëw waaw day ñëw fëgg sama bunt dama gannaaw ma ko waaw Moussa. ma ne ko ñëwal mu ñëw dugg na ma ah loo xew ma ne ko si lan mu ah man kay dama laa gisul dara affaire ma ne ko du dara dama toog rek barke alxuraan mu dem génnee xaalis ñëw jox ma ko waa maanaam dafa moom dafa mu xam jamono mm-hmm. ba pare joxoon ay cër ay magam mm-hmm. xanaa xamoo ne Moussa ñu bëri dañ koo jàppee koo xamante ni benn waayaa waayaa la boo xam ne te moo gën ci àdduna barki Seydina Mohamed dafay ku baax la woon buggul woon kenn mer lu ko dal rek looloo ko ko teg buggul woon kenn mer tey jii maaki yow mi mu bokkal ñun la yemale bu ma sàgganee tuuti sax man dina ma fii fi yow lay gën a jàpp parce que buggul nga mer moom noonu la moom wala mën la wax man foo jaar di nga tax da nga koy sottoo bëri ñëwaat tëddaat mu lay neex mu lay naqari fooy bañ jaar fu ne jóob de jeex jaam dina la fa jaarale xamal ma loolu borom soow mi ngay wax xale am naa doole ah jeex amoo doole foo yow looy fooy jaar la boo jóob de maay puus maay daan fooy bañ ma jaarale fooy bañ fi dinaa la fa jaarale fooy jeex fi say morom mënoo bëre amoo doole jëlal lépp mun maa bëre aw ma doole mais man maa daan maa daan